néew na ku nekk ci dëkk bi di liggéey lu ëpp 16 heures de temps te ñun moom ñuy def te amuñu benn contrat da ngay gis suñu terminus yi sax dañoo xam suñu liggéey bi dafa copte ay soxna te ñu sax ay toilettes te xëy na góor ni mu mën a suturloo jigéen mënut a suturloo loolu loolu nag la ñuy muñ ba mu ëpp suñu xol ñu génnee ko génne woon nañ ko 2021 ñu bindoon ñu ay protocole d'accord mais defuñu si dara loolu moo tax ñu na waat bindaat beneen préavis de grève jox leen ko mu def weer jéemuñu si dara ba ñu ñu demaat grève jàpp naa ne état bu ñàkk kon balaa ngeen di grève defoon ngeen benn préavis dañuy jox leen ko ñëpp ñu ñu ko war a jox ñu saytu ko xool ko war a def ñoom un mois bu defee un mois ba pare ngay doo ko jàpp jour grève kon jàpp naa ne bu ñu jëloon seen responsabilité war naa mën a jëye ji am war a bañ a am. loolu rek moo sabab grève bi li amul ay ay toilettes. non du toilette yi kese. ak la ñun bu ñu feebaree du ñu faju ñaata chauffeur ñoo fi nekk. seeni cër wàññeeku ñu dawal ba accidenté parce que assurance oto bi chauffeur bokk ci receveur bokk ci dañoo war a am IPM caisse de sécurité sociale suñu njaboot di faju comme liggéeykat ni mu waree parce que afti dañ koo indeen fii def ko renouvellement parc boo xoolee njegenjaay dañ fay nekkoon nekk yu màgget ak super yi ñu indi afti pour changer leen da ngay joxe njegenjaay dugal caution ñu jox la tata ñu ne loolu nag dafa ànd ak cahier de charge cahier de charge ku ciy liggéey dañ war a former buñ la former ba pare defal la contrat ku ne di former ngay liggéey ci heure di wàcc heure comme dem dikk léegi nag ñoom loolu lañ jël dugal seen trois yi di fay nit ñi nu mu leen neexee di leen exploiter nu mu leen neexee mais nit nag boo ko boo ko dee nax ba mu yeewu nga arrêté nax yi 18 ans nga koy nax doomu aadama mu ne la man yeewu naa jox ma sama xaalis bi ñu ma yoreel nga ne ala mukk duma ko jox jox ma sama ak sama yelleef nga ne ala mukk ma ko jox ba état di seetaan loolu loolu moo tax ñu banque suñuy loxo. ak lan. Euh, bon ñun si li ñuy liggéey mën naa ni formel lañ ko tuddee mais informel la. parce que li ñuy liggéey ñun yéen a ngi bu fekkee yéen a ngi yëg tataay wala ngeen rombante ngeen ngeen gis ñaari tataay yu dàqante loolu ñàkk règlement moo ko waral parce jàpp naa ne télé bi bu ma fi yee dugg war nañ maa wax télé bi kat lii la bëgg lii lay bañ lii lay bañ ma xam ko ñu wax ma te boo defee nangam ak nangam li moo ci fekk mais loolu amul ci tataay te loolu moo a nekk kayit yëpp mu ngi fi mais dañ koo dëxante téye ko loolu mooy waral ngay gis tataay yi di dàqante ndax jëkkante client parce que tataay yi seen yoon nekk ci xaalis li ñu war nekk mooy dañoo war a yóbbu client yi ñu ñëw yóbbu client yi mais da gis état bu yëpp ay doomu adama di taxawaal di taxawaal ndax système bi parce que lan dañ naa la boo kii yoree oto ma yor oto su ma ko ëppalee xaalis ñu yokkal ko xaalis. su ma ko ëppalee li may verse su ma ëppalee li may verse ñu jox ma prix. c'est comme ça que ça noonu waaw loolu lay demee noonu lay demee su ma fekkee man maa ëppale kee li may li may am dañ koy yokkal dañ may yokkal prime man pour moom mu mel ni man suba day bëgg a am li ma li ma am wala mu mu am lu ko raw mos ngeen a gis dem di kii daaxante. mu mu dañoo correct ñoo yem même kay charge ñoo yem même Kayar Sarr ni ñu leen war a appliquer ñoo yem même chose mais opérateur AFTI yi man damaa jàpp ni état da seetaan ni nekk si dégg réew mi def lu leen neex parce dañuy dund injustice boo xam ni fu ma dem dama koy wax gis nga fi mu toll nii transporteur AFTI boo ko yóbboo ci yoon mu tooñ la nga yóbbu ko ci yoon dootoo liggéey ci AFTI. dañ lay dàq. non xam nga nit bu la neexee may liggéey ak yow ba mu neex nga dàq ma. ma dem topp yoon ba soo jógee fii kon liñ ma bu yàgg. Hmm? man ah, dàq nañ xam nga transport. dafa nekk mbir moo xam ni nit mënu see génnee nit nit nag mën na see jéem a génnee nit waaye li tax du la ci génne yaa koy xeex. mais yow nekkatuloo employé afti waaw instant yi parce que xam nga tey dara terewuma pour ma liggéey ci réseau bi parce que liy wane li yoon li muy maye yëpp pour liggéey ci réseau bi am naa ko mais instant yi dafa am benn réseau bi mooy tataa mais dafa am benn lobby bandi bu ñu def mooy tey benn Abass bu fekkee dafa dafay wax lu leen arrangé wul wala muy kaas ay droit am dañuy woote ci kaw wax ni avance tata bu mu yëg nañ ko wàccee. loolu est-ce bu ma ko seetaanee keneen seetaan ko loolu est yoon la. mais est-ce que c'est pas contradictoire le fait que nga ba pare nga nekk en dehors après di leen sànni di leen critiquer. est-ce que est-ce que loolu am kii la est-ce que loolu. je sais pas moi coup bi dina porter est nekkul di dóor si ndox boo xamante ne di dëbb si ndox. waaw mais gis nga dëkk bi tey kenn demul kenn ñoo ko waral. temps mais am na ay kii yu doon daw am na ay oto yu doon daw de. jox ma leen. ay Ndiaga Ndiaye ñu ngi daw non waxuñu Ndiaga Ndiaye ñun grève afti lañ def alors.